asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen dalal euh, comme ni mu ko waxee nag mooy li tax ñu woo leen mooy problème yi xew dakaar ajjuma passé mu di problème yoo xam ni diggante ci union bi la diggante Ablaye saw ak euh, sëriñ Mboup mu nekk nag histoire bu xaw a yàgg ñu dox ci tànku jàmm ba sonn waaye gis nañu ni euh, luñ ci doon dox antuwul bi ñu wootee réunion bi fii euh, ajjuma bi ñu demee ordre du jour bi la ñu d'accord ndax ñoom duñ ñëw ni dañuy renouveler bureau bi ñu xamal leen ne renouvellement bi de bureau li koy waral mooy xëy na président bi daf fi jóge wala bureau bi am benn problème waaye comme bureau bi amul problème président baa ngi renouvellement de bureau mënul am loola ñoom ñu daal di buudee dem bi nga xamee ni nag euh, moo du li ma programme woon ndax man toujours ma doon fexe ñaari camp yëpp nekk benn même bi nu ministre bi woowee woo ñaari camp yëpp ñëw ni dafa bëgg ñu jubale leen mais ñun suñu taxawaay moo doon nañ ñëpp ànd nekk benn ndax itam suñu jaar-jaar ci réew mi ñun waratuñu àgg foo xam ne dañuy parparloo di far fii wala ñuy farfale ndax yaakaar nañu ni ñun war nañu man fexe ba. problème bu rëy lu mu am lu mu rëy rëy rëy bu ñu leen dajalee man waxtaan ba jàmm am bi ñu egsee tam programme boobu la ñu xalaatoon dama waxoon ni comme dama ko daan defee rek suñu ñëwee ñaari parti yi damay essayer fexe ñu déggoo waaye comme ci ordre du jour bi d'accord ci ñoom tooguñu fa kon loolu mën woon am bi nga xamee nag wax nañu ni léegi programme bi euh, ñun suñu réunion dañu koy continuer ci laa woo président Modou ni ko léegi nga ñëw toog ndax itam comme am na loo xam ni man yoon may na ma ko am na loo xam ni yoon mayu ma ko mën naa ko représenté ci bu jàmm rek xewee lépp loo xam ne réunion bu ñuy def la bu président nekkul vice président mën dafa nekk waaye suñu demee nag ci élection de bureau président yi rek ñoo mën woti comme ñoom programme boobu lañu indi woon ci la ñu woo Modou mu ñëw bi Modou ñëwee Modou moo signé euh, liste de présence bi révolution bi itam ba mu paree moo ko signé ci kanamu directeur de commerce bi nga xam ne moo fa teewaloon ministre kon suñu déggee tey yeneen kàddu ñu wax ni man maa signé ci euh, maa falsifié maa imité signature Moodu loolu vraiment mu nekk lu mu metti muy tooñ bu rëy itam ñu tooñ ma ko ndax itam man def naa ni sama jaar-jaar war naa passé lu mel noonu ndax itam le Inaakoa judd mu jël yore bureau régional Thiès 89 ba 94 euh, direction bi am problème Dakar ñu ni léegi fokk ñu renouveler bureau bi waye li ñu gis moy comme région yëpp Thiès mo ci nek euh, numéro 1 nañu jëli président Moustapha Diop jox ko euh, Inaakoa national muy 94 lañu ma jël ci Thiès ni naa diriger. région yëpp ma nekk fa ba 2007 defe naa liggéey bu rafet laa fa def chambre commerce bi itam 99 laa fi ñëw ba 2003 te defe naa bi mu fiy jógee tam bilan bi mu fi bàyyi ku ne gis na ko bi ma ñëwee li ma leen njëkk wax moo di nii yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci chambre bi di fi liggéey kenn koo xam ni jàmm rek am na la 55 ans nga fay am boobu retraite ñëwagul 60 ans. man leen man cinquant ans moo ma boole ak yéen kon kër gi du sama kër seen kër la su ma ñëwee war a liggéey yëkkati leen seen kër jàppale leen su ma ñëwee nag def leneen xeex leen ma ndax booba danaa yàq seen kër dem bàyyi kook yéen ndax man ressource si may am maa ngi am feneen maa ngi sama entreprise maa ngi liggéey kon yéen fii rek ngeen wooloo su ma ñëwee pour defar jàppale leen ma su ma ñëwee pour yàq xeex leen ma parce que seen kër 50 50 ngeen fa man 50 mu boole ak yàlla def ma liggéey loolu ba lépp rafet ma suñu jaar fenn foo xam ni def nañu fa loo xam ni ëllëg ak si biir bu ñu ko nettalee ñu rus ndax itam avant tout nit ki sa dignité moom rek nga am kon suñu toogee ba heure bii ñu tuumaal ma lu mel nii ah, wax dëgg yàlla dana ma netti dana ma naqadi moo tax ñu oo pour wax leen ni loolu ñu wax tuuma la nekkul lu am moo di bi nga xam ne moo moo fi toogoon dana leen wax ni moom moo signé Euh, liste de présence bi révision bi mu paree itam moo du moo signé directeur de commerce mi ngi toog kon bu ñu déggee yeneen wax ñu wax lénen vraiment mu nek lu metti mo taxoon ñu wo lén pour vraiment démentir lolu xéna na li ñu wax sax mënoon na gën bari waaye comme l'essentiel bi li la vraiment ñu ngeen xamé ko nonu lañu wax dara amu ci lañu wax dara nekku ci té ay kilifa nak war nañu ëppal seen bop di def kaddu yoo xam ne ëllëg si biir ñëpp dañu xam ne li nga doon wax nekkul dëgg vraiment ñun euh, euh, rafetlu wuñu loolu ñu def ah ñuy ñaan yàlla nag lii tas ba ñu xam ne la ñu waxoon nag li nekk nekkul benn salaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum ñi ngi ñëw fii au niveau de la chambre de commerce de Thiès man maay président Modou Diop président chambre de commerce de Thiès comme ni ko président Tafa waxee rek. ñun vendredi passé dañoo à Dakar ñu amoon foofu réunion de bureau mais président Tafa mooy suñu doyen fii Thiès mooy doyen itam union nationale. ndax problème bu fa am moom moo koy réglé moom la ñuy woo mu tegaat ñëpp ci kii bi ndax moom mooy doyen foofu ñu fa nekk président ñëpp ci 14 régions yëpp ku dul Djibi Cissé je pense bien que moo fay nekk doyen comme ni mu taxawee fi Thiès non la taxawee won Dakar Union motax souvent réunion yëpp mom lañuy ñuy mom lañuy mom lay wax bu mu dem représenter ñuko tant que amul ay vote wala amul len toujours moy dem présenter ñu bu ñu xamee nag am problème Serigne Mbuub ak président chambre de commerce bu Dakar si lañ ma wo ni ma ah y a un problème il faut nga ñëw tew pour résolution bi ñu fiy wax nga mën ko signer si la dem ñëw signer ko ci teewaay ndaw ministre du commerce. directeur général. directeur commercial international. intérieur intérieur. directeur du commerce intérieur. moo tax bi ñu vraiment ñu metti ñu trop ñuy tuumeel suñu suñu doyens, vraiment Thiès yëpp di ñu woo di ñu laaj di nan la demee moo tax tey ji ñu pour leeral mbir mi ndax nit bu ñu rek il faut nga.

secrétaire général chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de la région de Thiès. par rapport à la question posée par le président Modou Diop est-ce que nous reconnaissons le bureau Dakar bi bu ou bi ou pas nous ko reconnaître parce que le bureau est valable Union nationale des chambres de commerce d'industrie et d'agriculture du Sénégal décret 2002 Moko régir Si ma jumulee 2002 du 17 mai 2002 Moko régir décret de fonctionnement c'est ce décret Bob, dafa wax ces article 11 de article 13 pour nous élire réunion pour ñu élire bureau union nationale des chambres de commerce du Sénégal il faut que d'abord nous élire les instances au niveau national Madame chambre de commerce 14 chambres de commerce du Sénégal 14 chambres de commerce du Sénégal dans chaque région dem élection renouveler les instances de l'assemblée générale Si nous renouveler les instances de l'assemblée générale quatre mois euh, devant, euh, sous la présidence du gouverneur de région, quatre mois après, le ministre du Commerce devait convoquer les 14 devait convier les 14 présidents yi nga union nationale des chambres de commerce comme dit, l'élection amul élection amul le président qui euh, qui actuellement un exercice n'est pas malade n'est pas décédé n'a pas été radié il jouit de ses droits civiques té démissionné Le président Moustapha Cissé bu nous biñu togué ñu point ordre du jour élection du bureau est-ce que élection est na parce que conditions yi le renouvellement instance amul président bi démissionné wul il jouit de ses manames, il jouit de tous ses droits civiques et moraux donc élection mënul sur cette base comme sommes déjà euh, euh, sur cette base nous nous ñu mais chambre de commerce Thiès faralul ma sàmba on est bi la faral droit bi la faral légalité bi la faral légalité décret 2002 wax président Serigne président en exercice de l'union nationale des chambres de commerce d'industrie et d'agriculture du Sénégal boobu le reconnaître ak benen bureau sax dafa amul parce que benen bureau su mënul am sans la convocation du ministre sans le renouvellement des instances au niveau régional kon beneen bureau amul secrétaire qui plus est ils sont minoritaires parce que président Modou Diop mii tout mal, tuumaal ne nekku fa président Moustapha Diop ne imité le président Modou était bien présent donc nous suñu nekkee la voix du président en exercice en l'occurrence président Serigne président en exercice de l'Union nationale est une voix propre prépondérante ce qui tey dafa euh, euh, à égalité donc même cette élection président euh, la voix du président Serigne Mboup moo la 8 huitième voix contre cette élection union actuellement je bi gagné là à forte raison il n'y avait pas de raison de tenir une assemblée générale de renouvellement des instances du bureau de l'union nationale des chambres de commerce d'industrie et d'agriculture du Sénégal merci